benn représentant de coalition civile bu ñu gisee yooyu mu jaadu ko ñun ah lii dafa war a yóbbee ñu ubbi kees yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk kees yëpp loolu nag boo koy demandé bu faveur booy demandé dafa doon li nga xam ni loi bi moo la ko permettre ñëpp xam nañu suñu liggéey ci suñu ay demande moo tax bu ñu ñëwee article LO 142 dafa wax ni tant liggéey bi mu ngi am mën nga demander ubbi kees yi mën xam document yi lan moo xew pourquoi kees yooyu parce que li ñu wax mooy seen i PV mais kees yooyu ci lay sukkandiku tey jii nii pour def calculam pour jox ku nekk lan nga am donc li jar a vérifier mooy kees yooyu tëju parce que kees yooyu tëju moom la ñuy utiliser pour proclamer donc bi ñu ñi ñu ko danoo bëgg nga may ñu temps ñu ubbi kees yi mën a xool lan moo ci am ginnaaw bi ñu gisee loolu démb soogaa di avancé te loolu damay fàttali activité bu loi bi prévoir mais ci sunu surprise mu bañal ñu loolu bañal intercoalition bi mu ubbi kees yëpp loolu doon lu doy waar ñi nag day proclamer résultat provisoire yi tey à 17 heures ñuy wax sénégalais yi nii que du obligation ci commission nationale bi mu génne résultat yi tey à 17 mën na continuer liggéeyam ba suba minuit comme loolu am na lii di doon activité bu loi bi prévoit doon activité bu légale waa nga bëgg ko empêcher pour précipiter à 17 heures loolu day yéeme ci xel mu kon ginnaaw bi sénégalais yi joxe la majorité à l'intercoalition Yewwi Wallu majorité boobu du majorité bu ñuy fabriqué majorité boo leen am les preuves pour lu joxe un million cinq cent voix jox ñële moins kon on la majorité et on ne peut pas accepter que par ay jeu que ñu traduire que autrement ci nombre de députés yi alors que daf ñu war a jox tey jii nii la coalition ou l' intercoalition Yewwi Wallu cette majorité à l' donc loolu la nit bu jàll moo tax lépp lu génn ci commission nationale de recensement des votes tey 17 heures te activité bi permettre ñu ñu def ko ni mu waree te loi bi jox nu ko précipité war génn tey 17 heures alors que mënoon dem suba ba minuit loolu duñ ko mën a accepter et duñu engagé loolu la ñu nekk ni daan ko wax sénégalais yi xam ko kon xam leen la commission nationale li mu nekk di def tegu ko yoon lii opposition bi demandé droit wam la et loolu waruñu woon empêcher ñu exercer côté donc c'est ça ce qui se passe à l'intérieur les irrégularités que nous avons notées hier sont de deux ordres. Le premier type d'irrégularité, ce sont des bureaux de vote où il n'y a ni les signatures du président, de son assesseur, de son secrétaire, ni les signatures des représentants des coalitions. L'autre type, ce sont des bureaux de vote où il n'y a que les signatures du président, de son secrétaire, de son assesseur et aucune signature des représentants des coalitions. Ce qui est également bizarre, c'est que là où il y a toutes les signatures, ou en tout cas les signatures de l'intercoalition, dans ces bureaux de vote-là, il y en a dans certains où on est même devant. Dans d'autres où l'écart n'est pas aussi significatif. Et là où il y a ces deux premiers types que j'ai cités tout à l'heure, vous avez des scores fleuves de Benoît Bokyakar, là où on attribue 4, 3 ou 5 à l'intercoalition.

aujourd'hui à 17h la publication des résultats provisoires. Et nous disons que sans l'exercice de ces activités prévues par la tout résultat qui sera programmé ne peut engager Yewwi Askan Wi.